nguur gi mu ñu dule euh, dimbale ci fànnu maanaam euh, yi Covid bi ñëwee donc dimbalee ñu ci valeur bu 500000 donc permettre nañu vraiment ñu ñu ñuy wax ñu génnee ñu bopp ci ndox bi parce que vraiment métti woon na pendant 4 mois mais loolu yi mu ñëwee dimbalee nañu. fekk tamit tourisme local bi sénégalais yi commencé ñëw découvrir vraiment gis Sine Saloum donc loolu moo tax instant yi vraiment ça va quoi. Mm, sénégalais yaa ngi ñëw. sénégalais yaa ngi ñëw bu baax a baax a baax et vraiment loolu lañ doon xaar même avant Covid bi donc Covid bi dafa accéléré affaire bi rek mais avant Covid bi sax loolu lañ doon xaar donc comme instant yi vraiment sénégalais ñu ngi ñëw donc ñun vraiment je pense que ne même suñu amagul touriste touriste européen donc dinañ mën a jàppagum ci tourisme local bi ba loolu redémarrer côté bii liñ ci mëna découvrir bari na ki nga nekk euh, yow ak xam nga en amour ak sa jëkkër wala yak say dom wala yak say xarit donc soo ñëwee am ay hôtel amna ay euh, ay restaurant amna ay journée pique-nique yo xamné da ngay dem ci au bord de l'eau donc voilà que soit du paddle du kayak donc activités bari nañ pour nga mëna vraiment nek euh, dans les meilleures conditions ci les Saloum